salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu yéen ñi seetaan jot na média man la seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmadou Bamba defalee saa su ne saa bu communiqué conseil des ministre bi génnee ñu dikk ak yéen faram-fàcceel leen ko tënkal leen ko defal leen ci synthèse ngir sénégalais yépp xam li nga xam ne moom lañu ñu jotoon waxtaan ku ne xam ne ni àllarba bii ñu génn dëppog mercredi 29 mois 2024 moom son excellence le président de la république dajalewaat watna dajé yoy muy amal ay bés bu né fofé ci palais de la république ak ministres ngir waxtané euh, tëralin li nga xamné mom lañuy am té jëm ci doxalinu réew mi ci doxalin woowu ñu mën leen ko tënkal ca la fa jote ci ñetti point benn bi moy li juggé ci ay recommandation ak ay orientation mon président de la république deuxième point bi mooy information ak orientation yi nga xam ne moom le premier ministre bi Ousmane Sonko joxe troisième point bi mooy communication yi nga xam ne yeneen ministres yi fa nekkoon jot nañ ko joxe bu ñu jëlee premier ponk bi di les recommandations du président de la république et ses orientations mën nañ ko xaajaat ci ñaari pàcc ndax ci ñaari ponk la gën a wax démb benn bi mooy jëm ci wàllu yoon maanaam justice deuxième point bi mooy li nga xam ne jëm na ci wàllu environnement bu ñu jëlee ci wàllu justice moom son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ñëw na ci assises yi nga xam ne jot nañ ko lancé te mu dëppoog assise de la justice ñu defaale ci benn dialogue national ci loolu mi ngi invité di fàttali gouvernement bi ngir ñu xam ne dialogue yooyu day cëslaay bu am solo la ci lépp loo xam ne day indi jàmm day indi dal ci sunum réew waaye nag yemu ca dina bokk ci li nga xam ne day gëna mëna indi loolu la tuddee appropriation jëm suñu ay politique publique waaye nag gëna relancer li nga xam ne mooy suñu économie ci loolu moom son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ngi fettali di feddali laxasaayam di feddali taxawaayam ci li nga xam ne moom la tuddee réew ngir tabax Sénégal boo xam Sénégal bu jub la waaye nag jub googu day lalu ci lii ñu tuddee maanaam Sénégal bu jub la waaye jub bu lalu ci maanaam doxalin wu leer maanaam transparence waaye it tënku sur ay valeur waaye tënku it ci li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu justice waaye nag mu doon justice boo xam ne justice bu jaara jaar yoon lay doon justice boo xam ne mën naa méngale ak li nga xam ne moom la ñu tuddee justice rendue au nom du peuple sénégalais ci loolu moom son excellence le président de la république ba tey ci dialogue bi digal na ministre bi nga xamné mom mo yor walu yoon mu andak mbollem sen président commission yi ak sous commission yi ak facilitateur bi ngir kat ñu doxal doxalin bu leer wu jaar yoon lepp li nga xamné dañ koy waxtaanee ci dialogue dañu xamné bu ñu noppé lepp lo xamné ne na ci té ñu tënk ko mom son excellence le président de la république ak son gouvernement ñu gën leen xam ci pouvoir exécutif dinañu càmbar la fay jot a waye waaye nañ ko top ba fi nga xam ne moom mooy jariñ ci biiru sénégalais yi ñaareelu ponk bi nga xam ne jot na ko wax mooy lu jëm ci wàllu environnement moom son excellence Bassirou Diomaye jaxaar fay jot na ci àddu lim ci wax nag mooy journée mondiale de l'environnement bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal te mu dëppoog la 5 juin 2024 moom monsieur le président de la république mi ngi invité gouvernement bi ñu gën a siiwal ñu gën a yaatal politique yi nga xam ne lii di suñu gouvernement dañ ko indi tamit politique yu yees sukkandiku ci projet bi nga xam ne moom la ñu présenté Sénégalais yi waaye nag di ay ponk yoo xam ne wax nañ ko ci politique ak ci projet yi te mu jëm ci wàllu environnement wàllu développement durable ak wàllu transition écologique moom le président de la république digal na ministre bii nga xam ne moom moo yor wàllu environnement mu gën a bàyyi xel ci lépp loo xam daa dem ci gestion parc bi ñu tuddee parc Niokolo Koba waaye mu yeesal ci yeesal boobu mu yeesal waaye lépp loo xam ne organisation la jëmit ci wàllu fonctionnement ci ñaari kër yi nga xam ne moom moo nekk ci maanaam ministère am ñu gën ko xam ay direction lu ci mel ni direction des eaux et forêts chasse ak conservation des sols ak direction bi nga xam ne moom lañ tuddee direction des parcs nationaux yamul foofu digal na ministre bi tamit nga xam ne moom lañu jox lépp lu jëm ci wàllu environnement mu ànd ak ñi nga xam ne moom mooy ministre bi ñu dénk wàllu urbanisme ak ki ñu dénk wàllu assainissement ngir kat ñu liggéey ci gën a yaxanal gën a yaatal li nga xam ne mooy aménagement yi ñuy def moo xam ay place publique te nekk ci gox goxaan yi waaye it ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu axe routier yi ngir ñu gën koo gën koo taaral ci wàllum maanaam aménagement paysager waaye yemul foofu digal na leen tamit ñu lëkkaloo liggéey ci li nga xamné moy gestion des déchets solides waye aussi ñu liggéey ci li nga xamné mom mo jëm ci walu réseau assainissement yi ba manam mu gëna mu gëna jaar yoon mom son excellence le président de la république Bassirou Diomaye jahar fay digël na gouvernement bi ñu lancé ay campagne d'information ak sensibilisation jëm ci askan wi ngir kat ñu gëna xam éducation environnementale waye ñu gëna xam né seeni sàmmee lépp lu jëm ci seeni

de la république wax ministre yi nga euh, chaque ministère digal na la nga am plan d'action nga teg ay jéego yu am am solo ko mobilisation des forces vives de la nation ngir environnement le président de la république son excellence basiru Diomaye Diakhar fay mi ngi yëgal sénégalais yi mi ngi yëgal askan wi mi ngi yëgalit conseil bi ne gaaw bi ñu jëm dëppook samedi premier juin deux mille vingt quatre fas yéene naa amal journée d'investissement humain ñu gën ko xam ci set setal ngir kat mën a waajal li nga xam ne moom moo jëm ci nawet bi ñu dëgmal ba woona ci sénégalais yépp fu waay mën a nekk na nga wàcc ci terrain bi ngir fas yéene ànd ak moom bis boobu ñu tuddee journée de set setal waaye yamu ci nee na buñ ca jógee it weer wu jot danañu jàpp benn bis boo xam ne dañ koy jagleel lépp lu jëm ci wàllum set setal woo mboolem seen askan wi sénégalais yi ñu wàcc ci terrain ngir mën a def li nga xam ne moom mooy setal sunu ay gox setal nag ak sunu ay dëkk. moom la président de la république Bassirou Diomaye jaxaar fay bi mu daanalee kàddoom kii di le premier ministre Ousmane Sonko jël na ay kàddu yëkkati ko. ci li nga xam ne moom moo jëm ci liggéeyloo bi ñu koy liggéeyloo ak ci doxalin wi nga xam ne moom lañu am ci wàllu environnement ci loolu moom la première ministre Ousmane Sonko xamle na problème yi nga xam ne jot naa am te ñu ngi koy jànkonte ci wàllu trafic des bois waaye aussi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci nii nga xam ne ñu ngi koy daggee maanaam garab yi ci wàllu sud du pays ak ci wàllu est du pays nga xam ne malgré effort yi malgré mesures yi nga xam ne jotoon nañ ko te jël teewul ba fii ñuy wax ak yow maanaam am na ci ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkoonteel ci loolu tax na moom monsieur le premier ministre mu annoncé rencontre yi nga xam ne des na ko def ci lu yàggul dara mu doon une rencontre interministérielle ngir mën a xool ban solution la ñuy am par rapport ak ci dossier bi nga xam ne moom lañ wax sànq mu jëm ci loole mu mu tuddee jafe-jafe yi nga xam ne ñoo am ci wàllu ci wàllu aalam monsieur le premier ministre Ousmane Sonko Mingi ngi digal ministre bi nga xam ne denk fonction publique mo and ak euh, secrétaire général bi nga xamné mo nek au niveau du gouvernement ngir kat ñu mëna taxawal ak kuril go xamné euh day am ñaari mission ci wet dañuy euh procéder ci lépp lo xamné évaluation la ci programme bi ñu tuddé PAMA muy programme d'appui à la modernisation de l'administration, waye ci geneen wet ñu indi ay proposition ci lepp lo xam ne euh, dafa di euh, programme USPEC manam ñu articuler articuler ko ci projet bi ak enjeux yi nga xam ne moom lañ tuddee les gens de l'heure monsieur le premier ministre mi ngi fatali aussi li nga xam ne diligence bi nga xam ne ci mettre en œuvre ben cadre bo xam ne d'exécution d'exécution yi nga xam ne mo jëm sur les plans

bi mu daanelee kàddoom ñaar ci ay ministre jël nañ ci ay kàddu benn bi mooy ministre bi ñu dénk euh, maanaam ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères moom ñëw na ci wax situation bi nga xam ne moo jot am bitim réew beneen ministre bi nga xam ne aussi jot na àddu mooy ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ministre de li ci wàllu ndox ak assainissement moom it ñëw na def compte rendu ci préparation yi nga xam ne moom mooy journée nationale de nettoiement bi nga xam ne ñi ngi koy waajal waaye aussi ay action yo xamné ne nako tek ci lu jëpp jëm ci wàllu prévention jëmit ci euh, manam inondation yi nga xamné mom lañu déggul donc li moy li nga xamné mo moo am ci conseil des ministres bi ñi ngi dem ba benen ñu indilaal leen benen numéro bo xamné ne dañu tukki ci communiqué conseil des ministres yi alaykum wa rahmatullah